lépp mu jox ma ndigal naa ko bàyyi dem ba àggal fa sama bopp ba gisee sama bopp la fa xew muy lee xew ca Daaru Rahmaan ak Pofdi ñu basee ba nga xam ne dafa fàq ba daanu indi fa yàq-yàq yàq yu bare bare li ngeen di tuddee catastrophe naturelle la daanaka. Mhm. kon muy mbir mu rëy moo xam ne sax jërutoon waxaat ci bitti waaye li tax ñu di ko leeral mooy fàttali ndax yàlla def na liggéey bi la ci ëpp fa mu tàmbalee ba nëgë ni maa ngi ko doon xam étape buñ ci mos a toll it ñii ma koy leeral kon nag bu fekkente ne lu ëpput at mbir am na amaat te ba mu amee daaw métti woon na ndax yàq na toolu jàmbur yu bëree bëri. ba daalo daaneeloon na économie yi daay yëngatu ci wàllu mbayum dem ci foofa te xam ngeen foofa li ëpp ci dëkk bi fale seen loolu di jóge daaw itam ñi yoroon ONAS jëloon ci engagement wax ne danañ ci def nangam dëggal na def nañ ci ay jéego kon ñu ngi leen ci sant si jéeg yooyu ñu ci def waaye jéego yi ne dafa des ndax lu ëpp at mbir ba daanu ren ji yàqa na tool yu bari ñoo xam ne seen yaakaar jépp mbay la woon ñu bay seen tool ba tool yi noppi bañ bañ ba ba bañ deqi ba noppi bay xaar war a farmanko ndox mi jël yóbbu lépp. waaw bokkut ak tool yi dër yi bokkut ak wal gami wal nga xam ne kenn xawul fu mu fa muy àgg ndax xam nga lu sonné dëkku Tuubaa ndox mi fi jógee lépp jaar ci bassin bu war a jàll kër kàbbu foofa la mooy centre bi kon foofu. war na doon liggéey boo xam ne warut doon liggéey rek ñab-ñabal ndax ci CRD yi ñu doon def ci màggal Tuubaa ci bureau gouverneur am na ñu fa laajoon loolu ngir wax ne ndax ba bi xóotaay bi waaye ña leen fa teewaloon itam jëloon engagement ne danañ ko def waaye foofa itam day liggéey boo xam ne di liggéey bu tuuti ndax tëlib moo jëm njurul moo jëm Taïf kon yoonu mag la jëm Daaru Rahmaan dagg na boo fa demee kenn mënatu faa jaar boole itam ñàkk sécurité gi fa am ndax xam ngeen ne ñi ñi nga xam ne dañuy dogale nit ñi fu ñu xool xam ne oto mënatu faa daw bu baax dañ fa taxaw di dogale nit ñi kon loolu ab liggéey la bu rëy boo xam ne ñu ko seq ñu ngi ciy soññ nguur gi ci ndigalu sëñ bi di leen ko fàttali ne nañ seet nu gën a gaawee ñu taxaw ci jàppale ci nit ñi ndax nit ñi sonn nañ te buñ jaaxalee ci sëñ bi lay ñëw. dëgg la amuñ fenn amuñ fu ñu jëm mënuñoo taxaw di manifester waaye sonn nañ. ba ca deset ci at yële weesu yàgg na boobu sëñ Sidi Moxtaar bi la woon waa Pof di di njabooru sëñ Modou Xari sëñ Modou Xari ku Serigne Touba fonkoon na ñëpp xam nañ ni demee ci yoon wi yàlla def bañ fay bëgg def parce que ba gënalu leen woon dañoo gànt te ñoom ku leen xam xam ne nit ñu gëm li ñuy def la bu toon kàddu sëñ bi ba adduna tukki nit du ko fa def ba yëf yi jafe it sëñ Cheikh Sidi Moxtaar joxe woon ndigal ba mu leen joxee ndigal boole leen ak Abdou Lahad Ka bi ak Modou Gueye ma doon taxawu yëf yi ñu ñu mujj jël engagement bàyyi ngir sëñ bi def ko. Mm-hmm. waaye boobu itam waxoon nañ dana metti ñoom ndax ña fa dëkk kenn wératut ndax yooyu bari na fa léeg ñu gis fa ay ñàngoor ki jaar lu ne fa xew ndax na na barab bindu ko mm-hmm. boole tëli ba nga xam ne kenn mënatu fa jaar boole euh, xuttaangu turux yi nga xam ne ñoo fay am ci dogale nit ñi. ba ca des ñu ñu ñu wax ne lëndëm gëm lëndëm tax na ñàkk sécurité yokk ba booba nguur gi ka fi newoon ministre jëloon engagement ne danañ ci def ay làmp ba mbër waaye loolu boobu ak léegi mi ngi bëgg ma juróom ñaari at wala juróom-ñett ba na gën defuñ ko. Mm. kon na loolu tax ndax euh, bu toll loolu rek dañ leen koy soññ ci biir di leen ko fàttali comme ni ñu baaxoo ndax yoon bi moom noonu mooy seenu doxin waaye nag toll na foo xam ne liggéey la bu jàmp boo xam ne buñ ci taxawut mën naa gën a indi fitna ndax xam ngeen ndoxam dëkk yëpp fa la jaar ren. xam ngeen ne suñ borom moom euh, yunazzilul xaysa min ba'di ma xalatu moom fu muy wàcc taw moo ko xam indahu ilmu saa wa yunazzilul xaysa wa yaxlu ma fil arham moo xam waxtu woon lay taw météo yeeg yëpp dañuy natt rek comme kenn xamul nu muy toll te gis nañ na daaw ren ji nit ñi dund nañ lu métti métti ci biir dëkk bi te li génn ci kër bari na ñoo xam ne toxu nañ seen kër dem rawatina biir centre biir Touba bari na lool te assainissement biñ ci doon def bu fi àggee fii ak buñ ko yokkaatut waajal ko ci at mii bu dewenee de gën a métti mm-hmm. ndax ren màggal gi fekk na wax waxsat bi ne ci digg bi waaye bu déwénee ci njëlbeen gi lay ne mm-hmm. kon boobaa day fekk waxtu bu gën a métti kon nëgëni si mooy waajtaay bi ñu ko mën a waaj bañ ko yemale rek ci biir bi ñu ci defoon daaw waaye dolli ko xam ne tëkk bi moo toll noonu mm-hmm. ndax ndax la suñu saar yi daa wax naan ak mandoodiku mu ngi tàmbalee ci yemale ñu yàlla yemaliwut mhm. waxoon naa ko ca réunion bi doon def ministère de l'intérieur ne leen Touba ñi ngi bëgg am gàllankoor jafe-jafe ndax bu fekkente ñu fi defar dañuy natt ne ñu ko defee fii def ko fële te Touba dëkk boo ci natt benn quartier ci Touba ëpp ko mhm. boobaa loolu du doonu maandu ci ñi fi fi dëkk te état bi nga xam ne moo yilif ñëpp di séddale it yaakaar naa buy séddale fu ci ne day xool ñu dëkk ci di xool dafay génn ci koom-koom mu delloo ko fa. Mm-hmm. kon nag loolu ñu ngi maa ngi woo léegi directeur ONAS ak ministre de la sa ministre bi yor euh, assainissement bi di Serigne bay Thiam ngir soññaat leen ci nu mu gën a gaaw ñu def ci yitte def ci taxawaay jàllale ko ba ci euh, président bi nga xam ne moo di yilif nga xam ne ci diggalam lay def waaye nañ xam ne buñ ko yemalee ci lañ nattoon daaw te dolliwaatuñ ko. bu déwénee jafe-jafe bu gën a metti mooy amat moo desaat leneen itam mooy fora li ñuy wax forage rabattement yi nga xam ne mooy xëcc nab bi daa wax nañ def nañ ci ñaar fukki forage ci diggante ñaar at yi waaye nañ xam ne bu fekkonte ne téeméer lañ ci waroon def defaguñ ci fukk kon ba nëgë ne nab bi ren dafa yokkaat euh, ñëpp koy jàmbat daanaka àgg na ci fi jege jumaa ji sax ëppatul mètre nga jot ndox mi mm-hmm. loolu nag kon buñ ci deful liggéey bu rëy dana indi gàll gàllankoor te Cheikh Mouhamadou Mountakha sax ci yitteem ak yërëm yërmande ak xam responsabilité bi mu yor dem na ba àgg ci joxe ndigal ba fii may wax yow ni am na ingénieur yoo xam ne jox nañ leen ndigal ngir ñu xoolal seen bopp ngir jëm ci gàttandu bu fekkee état bi nar naa yeex ndax yëf état du gaaw boobaa sëñ bi ci boppam defar ko boppam wooteel ko boppam taalibe Sëñ Tuubaa def ko loolu war naa toll ci ñaari semaine ba ñooñu tàmbali nañ cee liggéey ndax xam na ne buñ ko gëttanduut ndax ñetti at a ngi ñuy soññee soññe nañ ci bitti soññee nañ ci biir waaye gis nañ ne fi mu àgg dëgg-dëgg day mel ne ñun ni ñu koy dundi ñoom xamaluñ ko kon nag loolu rek mooy kàddu yi ci doon wax di mosaw borom sooy ñaan rek suñ borom mm, wutal fa te nguur gi nga xam ne ñoo yilif nit ñi itam te yàq-yàq yu mel nii bi amee ndax daaw jéeg yaakaar nag digoon nañ leen ne daañ leen dimbale Abdou Mbacke nag yaakaar naa xamoon na ci dara mm-hmm. waaye loolu itam yaakaar naa fen fenn mm-hmm. kon moo tax ren jii bi ñu jaaxlewaatee itam ci sëñ bi la ñëw mm-hmm. sëñ bi joxal ma ndigal kon it nañ fexe ba ni mu baaxoo amee fépp ci Sénégal fu ngeen dégg lu mel ni am fa ña danañ leen recensé xam ña fa yàqule xam la la fa yàqu luñ leen ci may dimbali ñu def ko loola itam nañ xam ne loolu euh, sëriñ bi moom am na ci ñoom yërmande lu mu ci war dana ko defaa loolu war a gor la kon loolu rek mooy kàddu yi asalaamaaleykum wa rahmatullah